le 16 dernier noko jangate euh, regrettable muy lo xamné warul am suñu responsabilité yi. aussi ñi woté gën leen manifester. clair. ñi leen ñi leen mais ñoñu seen cër moy ku jeng ñu la tek ci yoon nga ñu la force état nu mu tollu moy la pour bañ nga mooy fexe jàpp la yóbbu la ci kaso bi. mais est-ce que fii laay jaar ak doo jaar fii war na mën a indi euh, jaxasoo bi amoon si 16 février bi 16 euh, mars bi. non du fii lay jaar ak doo jaar fii en réalité ki décidé ne day jaar fii. am na lu tax mu ne dafa bëgg jaar foofu. ñi décidé ñi décidé tamit du jaar foofu am na lu tax ñuy def ko. ci allez-y allez-y président allez-y monsieur Guèye boo ma dégloo on y va. ki décidé ne fii lay jaar am na lu tax mu bëgg a jaar foofu. waaw ah. waroon nga xam yow lu tax. non man xaw merci moom moo xam. dinaa ko leeral ci li ma foogoon ne moo am. mooy bugg naa su ma jaaree fii def na Idriss Seck defoon. Mhm. ñu convoqué le tribunal. nga jógee point E. jaar buntu université jaar leen euh, euh, si Tilène. traversé Sandaga coow li ne kur. te fu nit jaar yenn ñi am popularité Sonko xale yi dañ ko bëgg. Mhm. danañu génn attroupement mun na am. conséquences yi muy jur képp ki nga xam ne mu yaa way sécurité publique yow yaa yore ordre public. Mhm. yow itam dëgg naan du ma fexe mu jaar foofu parce que bu jaaree foofu circonstances yi li muy jur mooy je serai obligé d' intervenir et su ma intervenir ñaar moo mun a am mun naa sànni grenade lacrymogène nit ñi mën nañ tasaaroo nit ñi buñ tasaaroo mën nañ dem toj këri jàmbur mën nañ dem toj bitigu jàmbur mun nañ dem agressé ay bien wu jàmbur jël ko te loolu yëpp pour éviter ko ma fexe mu jaar fi nga xam ne bu fa jaaree attroupement du fa am mais Mohamed njort ne am na ñu la xam nga eh, bu ko kenn karee ah. xam responsable ah. mooy ki nga ne moo ko sécurité yi force défense de sécurité yi mhm. eh, ñoom ñoo responsabilité sécurité Ousmane Sonko xam lu tax de tension politique bu la preuve am ci kenn koo sauver Ousmane Sonko pour mën respirer gaz lacrymogène de manière efficiente comme souvent ni koy defee bu manifestation Amé, di jël ay vinaigre diko def ay mouchoir diko def ni bañ pour noyyi koku di jël vinaigre diko jox Ousmane Sonko vinaigre tour ci ramam bi mu jël mouchoir moko xol bopam boppam imbibé ko lu ci waxone pourtant koku dañ jàppoon ne da koy bugg donc force de défense et de sécurité yi war nañ mëna a xel ku wara a ci biti ñëw di empoisonné un leader politique wala diko ko indil ngaañ moo xam ne bu ëllëgee li ñuy wax gouvernement bi ñaar su ko fa xeer dalee dañ naan xeer bi benn policier moo ko sànni surtout ñu ngi naan nervi xam nga ñoom ñi yowee nervi mhm. c'est des policiers yow xam nga ne ñooñu c'est des policiers en civil tout le monde sait que ñooñu ànd ak accompagner les forces de défense de sécurité c'est des policiers en civil xam nga tax ñu koy def en général mhm. dañu bëgg mu nekk dissuasif maanaam yow xamoo ne yow ki nekk sa wet boo xamee ne ki nekk sa wet mun naa nekk policier da nga bàyyi xel booy def njuumte donc force défense yi ñoom di jël Ousmane Sonko di ko yóbbu tribunal aar ko moo taxoon pour éviter dara xew ci diggante bi ñu ne moom la mu ngi nii bi dara xewee maanaam mu dem hôpital ne dafa feebar je présume ko dafa feebar maa ngi koy souhaiter mu am prompt rétablissement moom ak le l'avocat mais loo ci dañ ne dañ ko empoisonné dañ ko dóor gaz dañ ko doon bëgg a rey on voulait l'assassiner imagine bu dara xewoon ce que ça aurait comporté pour le Sénégal rek imagine trouble yi naroon am bu fekkoon ne Ousmane Sonko am na lu ko dal ñi nga xam ne ñoo yor ah kaaru kaaraange sénégalais yi Ousmane Sonko ci la bokk ni ñuy aaree ñi nga xam ne nekkuñu ak Ousmane Sonko noonu la ñuy aaree Ousmane Sonko ak ñu nekk ak moom maanaam dañ koy mettre à l'abri pour que dara du ko dal wala bu ko dara dalee dañuy xam ne ñoom la parce que de façon ñoom ñoo ko jëloon. mais ñu bàyyi woon ko mu ñibbi aussi est-ce que réglé woon problème bi. déet bu ko bàyyee mu ñibbi xam nga lu muy wax bu génnee. Mhm. danaan ñoo ñoo ñoo fexe ko bàyyee mu ñibbi justice bi da koy condamné déet c'est-à-dire que dañu nekk jugement bi mën na ñëw comme mën na bañ ñëw. donc tey euh, non non non avocat am la preuve. avocat am ci boppam. moo ne ñu dañuy tribunal la ñuy jëm. waay dañuy dem tribunal. ça veut dire que moom moo la gën a xam ni li tax mu ñëw jël si Ousmane Sonko. parce que déparé wuñu ensemble bu fekkoon ne euh, Cyril yi gisoon na client <coughs> ci moment bi mu waroon ko gis tribunal problème du am mais malheureusement comme Cyril dem na ba xam ne comme li njëkkoon xewlaat. première fois mu xam ne kii bu tardee dañ ko doon sanctionné. Mm-hmm. mu ne naa fexe jëli ko ci diggante bi Ousmane ne damay ñibbi sama kër yooyu yëpp xam nga lu mu ci doon teg entre nous quoi man dama xam politiciens yi léegi. Mhm. ay police ce sont les forces de défense et de sécurité qui m'ont empêché d'aller au tribunal parce que ñoom ndax dama jaar fu ma buggoon jaar. Mhm. gars yi ne comme loolu la mun a am nañ ñu ko coppet yóbbu ko fa mbax na nekkee benn mhm. loolu aussi sañ-sañ la. mais son état de santé inquiète. ñenn ñi man san man san m'inquiète pas. personnellement ça ne m'inquiète pas. Euh, pourquoi Pour plusieurs raisons. mais ñom mom nee ça inquiète ñiko ko jege ça inquiète yow ça ne t'inquiète pas. xam nga seen parole contre la mienne. wa man dama japp né man ça ne m'inquiète pas. pour que ba wara a nécessité li nga xamante modi évacuation à l'extérieur. <laughs> Euh, man fofu aussi débat la xamné xam ne. Euh, am na ci tout sama xalaat. gis na nga def ben post ci si page Facebook bay di nax Sénégalais yow yaa nan lu ñu dal français ñuko ko yow wóoluwoo France ci dara yow japp nga ne France dañu bëgg a tout le monde képp ko bëgg a comme Thomas Sankara wala comme ñu reyoon Lumumba donc yow bitim réew sax la koy jappé parce que quand même Europe yëpp ñoo bokk Union européenne ñoo bokk ay ay ay bëgg-bëgg ci Sénégal Afrique nañu wax mhm. dëgg ñom ñep seen bop dañ ko jox Afrique comme Chine nous joxe bop Afrique comme Amérique nous joxe bop Afrique pourquoi nous sommes un continent très riche malheureusement continent bi nek c'est un continent sous-développé té ñom amnañ ay besoins en ressources yo xamné ne Sénégal Afrique la am kenn ku nek yaa ngi donc c'est légitime pour la France pour la Belgique pour l'Amérique pour le Canada que ñuy wut dara Afrique yow nga né lolu man gëwuma ko ma gëm moy ñun ñu ostracisé wu maanaam nek suñu souveraineté defal suñu bopp mhm. ba paré nga yaakaar da nga fébar nga ne nañ ma yóbbu ci bitim rew suñ docteur yi suñ agrégé yi faale wuñu agrégation wu tubaab yi te fan yu néw da nga xamné ne won muy dem France mhm. parce que de façon dina mu ngi ne cocc dina dem liggéeyaat ci benen rew plaide ji fofu xam naa ci dara ah parce que ki ko yóbbu France dama ko xam ki ko ah taxawu pour mu dem France dama ko xam

Euh, li li mu feebar sax en réalité ça n'a maladie jambour kenn du ci sori. <laughs> mais ça n'a rien à voir avec ni ñi li ñuy wax. ak lacrymogène ah, ah insuffisance yu mu am. Ah, ah. bokul ak nit ñi lu ñuy wax pour mu leer. mais mom nee lool parce que jël nañ ko ben interview il dit que gars ils ont été gazés que dafa sonn nañ ko wutal sax ay. <laughs> mais <laughs> ma ay mouchoir ay ki ay masque ak yooyu. ñepp ñi ñu gazé dañuy sonn parce que gaz yi effet bi moy loolu pour nga sonn pour nga bañ manifester la mais gaz yi du pour ay parce que da ngeen bëgg rey nit. lui ses insuffisances. moom peut être qu'il est ses complications ah médicales son état est fébrile quoi feneen la nekk du foofu. c' euh, c'est pas sur un plateau qu'on va parler de sa santé parce que ça concerne personnellement. mais c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sénégalais yi dañu wara a né duñu wër mukk tant que demuñu France pour man complexe le bo xamné ne am problème la am ñi nga xamné nak dañu bëgg def politique jamono bu joté doo ko kuñ fi japp kaso li ngay jëkk xalaat oui nañ ko autoriser mu def évacuation sanitaire yow feebaroo tu n'as jamais demandé aller en France pour te soigner ba jour bi ñu la jàppee kaso nga ne léegi nag man dama feebar nañ may bu France mu fa lañ ma mën a fajee pourquoi avant ñu jàpp la kaso demoo France faju yi wala kaso day tax nga feebar yooyu itam naxaate kat yu affaire naxaate la pour man ce que je souhaite daal mooy ñoom ñi nga xam dañuy feebar entre guillemets mhm. nañu wër ci jàmm. ndax entre guillemets bi mooy lan parce que wóoruma mais <laughs> ku ñu hospitalisé kay xanaa dafa feebar <laughs> wala day tàppale nga bëgg a wax. mais xam nga ne. non nee nga nee nga entre xam nga entre guillemets moom fu ñu ko def ça veut dire que. ma jox la exemple. ok je prends l'exemple de Guy Marius Sagna. Uh-huh. xam nga la veille daf ne dafa gaañu ba dem hôpital tëdd mënul bouger. le lendemain matin mu ceinture Ousmane Sonko ba ke ba faar yi commencé métti. Uh-huh. xanaa kon tel gaaw naa wér de. tàppale la.

loolu bu amoon sax dafa ñu def expertise xanaa. seen ndax da nga réellement. parce que tey dégg naa que euh, ministre euh, porte parole du gouvernement Abdou Karim Fofana nee na euh, c'est-à-dire que nous évacuer que c'est possible mais il faut qu'il fasse une contre-expertise. c'est clair c'est évident. mais est-ce que rawatina bu fekkee ci fi ki si lañ koy a jox passeport je veux dire que est-ce que loolu aussi c'est à eux de décider de cela. Ah, ok ça n'a rien à voir avec le fait que nous restreignons ses libertés rest li restreindre ses libertés dossier boobu ba tey mu ngi fii.